position mouvement Demain c'est maintenant xam nañ ko ñun dañu ne dañu respecter charte ndeyu réew mi maanaam constitution bi mu prévoir élection kañ lay am ak njiitu réew mi kañ la fi war a toog ba àpp buñ ko joxoon jeex bu jeexee keneen ñëw noonu la maanaam charte réew mi noonu la ko waxee loolu daal mooy suñu position li ci topp mooy appel bi nga xamante ni dialogue euh, ñun moom dañu mës ne autonomie de pensée et d'action mouvement bi dina toog waxtaan xool ban position lay adopté waaye li am mooy que ni boo wootee woote moom il faut ñu xam woote bi lan la waaye li gën a am solo daal mooy nañu respecté constitution bi lu mu wax.